yaa bëri njëriñ. Mambamba yaa bëri njëriñ. dem. yaa bëri njëriñ. dem. yaa bëri njëriñ. Mambamba yaa bëri njëriñ. dem. yaa bëri njëriñ. Mambamba yaa bëri njëriñ. dem. waaw mbokk téléspectateur bi Mami TV comme ni ma leen ko waxee ba gis tey yaay na gis euh, mbokk taalibe yi ak jëwriñ ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ku ci nekk di ñëw di dugg di génn di toog ci plateau bi waaye ma dalal fi koo xamante ni ku ko xam-xam kooku euh, sëñ Aziz Abo ku ko xam-xam kooku euh, sëriñ Abo ku xam it sa xel dem ci sëriñ Baara Mbacke muy sëriñ Maguette Samb mi nga xamante ni saa boo déggee way woow di baaraay Mamadou Lamine Mamadou Lamine ay baara sa xel muy koo xamante ni moom day koo xamante ni ku fës la ci ñu bëggoon a xam digganteem ak sëriñ Aziz Abo Madiana Mbacke ibn sëriñ Abo Madiana sëñ Maguette ñu ngi lay siyaare di la dalal ci Cap TV. barakalla Serigne Alaaji Mbaye bu eh, di la ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne muy bisu Cheikhul Khadim di màggal bi noonu Sénégal yëpp rawatina murid yi eh, dugg nañ ci baat boobu sëñ bi waxoon ij an rujuha ila xawmi saadatana wal teg fi naa sama jàmm ak ci yàlla ci dugg ñëpp sama digganteeg Serigne Abdoul Aziz mooy damay jullit jëpp ci moom al basage mu def ci man li na ci man muy njànguma xasaay di ko yëkkati neex lool waaye di ma royloo sëriñ Mama Ndiaye ma daan jàngal maamam sëriñ Baara am naa tawfeex sëñ Mama Ndiaye tey sama bopp ci digalu sëñ bi ñaanal ma mm-hmm. ba tey jii lu leen ci man nu ma mel rek sëriñ bee ko def ci man moo ma produire moo ma siiwal moo ma wone ba ci trois pièces bi ma solee tey ci bisu maamam bi moo ma ko jox barki Dembo Njaay ngir sëñ Tuubaa xasaayit yi nga xam ne nee naa ko sëñ Aziz Abo yaay sama ndey yaay sama baay yaay sama sëñ Tuubaa mu ne ma danaa la féete fépp nee naa ko bu dee daray ngor bi ci man jël naa ko takk cent franc jël jox la foo ma diri ma jaar fa muy sëriñ boo xam ne bi daf ñuy digal nii lu ngeen am balaa ngeen lay indi seen mbéy jox leen seen ngeen amul ngeen ñëw ma ñaanal bu desee ngeen indil ma ñu ko la bëgg la ci yoonu di murit saale nag gëm maam di ko dund di bi ko penc ni mu nekk buy bind kenn yomb ko fi ndax eh, lim fi def ay yaay Baye Fall sëñ Baara di Cheikh Sidil Mokhtar di bëggal naa na nga doon wut si sax màggal toogal bis ni kay dinaa sama diggante ak sëñ Aïs mën naa fi wax ba suba waaye ma résumé ko noonu rek incha hmm. allah waaw ah, dëgg la sëñ Maguette xool ci dañuy wax ne butéel la mu def rek la saañ bay xeeñ te ku dégg way woowu sa xel dem ci yow loolu sax yaa ngi wax waaye Mama Ndiaye la doon doyloo waaye waaye Mama Ndiaye ba fi ne yeggul fii waaye bari waa ne loo xamante ni saa bu ñu nee jànkuwut suñ yow lay dem waaye sëñ euh, Maguette Samb ñu ñëw fii ci penku guy mid dund màggal gi ak yéen dund ko nag nun mës ta dundee màggal nag wax dëgg yàlla ndax euh, ni ko Serigne Touba diglee gis nañ ko fi wax nan ngeen waajalee màggal ak nan ngeen organiser ba et màggal jàppande jaar yoon nii waaw revalorisation bi dañ ko teg rek ci li sëriñ bu mag bi waxoon muy borom màggal bi euh, taqsimu bi sunnati yaquduna lil jannati bi ziyaadi minnati li muxlisin muasim euh, nan nan ko màggal ci sunna jàng alxuraan jàng xasaay bañ a wax lu ñu wax bañ dox lu ñu def lu war a def te woo gani Sëñ Tuubaa yi dalal leen te berndel leen waajal bi jël lépp teg ko ci loxoy fédération suñu monsieur te Sëñ Xaadim Mbakke raxam nekk ci bopp bi mu ànd ko Sëñ Malick waaye nag jëre na ci soxna Xaadim bu cër boo xam ne yàlla paas yi ak yenn innovation yi ci bëri wax dëgg yàlla yàlla dogal na ci soxna Marim boo ko suñu borom jaarale ndax ku ñëw ren ci penc bi nga xam ne ku yokkul yaa wàññi te yokkute am na ci facette yu bare bare bëri dèjà benn ci plateau bi rek mosuñu ko fee def ñaar boo gisee bâche weeg décoration ak yëpp demee kon daal xam naa yëg-yëg bi gannaaw bi ñu ko tegee ci ni ko sëriñ bi bëggee temps si moo bi sunnati waaye jàng alxuraan jàng xasaayit bernde tudd yàlla sant la yàlla Serigne Touba. Mhm. waaw soxna Marème Mbodj ñu ngi koy jaajëfal moom it ndax wax dëgg yàlla lii bu amee plateau bi moom def na ci ay jéego am solo wax dëgg yàlla te moom it muy doon jàmbaar sëñ euh, Abdoulaye Diabo ndax Pikine ga ñu dëkk ñoo fa nekk ndox moom waaye nag euh, saa boo tuddee sëñ Abdoulaye Diabo sa xel dem ci soxna Marème Mbodj sa xel dem ci Thierno Ndomba wala ku mel di rek ci Thierno Ndomba di def ay jàmbaar yoo xamante ni kenn euh, du leen xeeb du leen xool du xeeb seen doxin wala nga ci jaar di jam sëriñ bi ku leen xool xam ni ki ñu jàmbaar la ki ñu àndal mooy defarkat la daa bokk ci defarkat sëriñ bi waaye mais sëñ Maguette Samb duñ la téye nag dafa ndax dafa mel ni sëñ baa ngi waaj a génn te yow moom daa am looy représenté ci kër gi daa am it nooy dafa mel ni yaay dugal sëriñ bi kon ñu dañ lay bàyyi rek nga joxe sa dernier mot euh, ji wax ni nga jub naam ni ngay ni ngay sante sëriñ bi daal ci bis xanaa sama kaddu gi mujj mooy ñaana Cheikh suñ borom yàggal ko fi wéral ko ak sëriñ Cheikh Jëmb Fall ak Cheikh Ahmadou Makhtar xalifa Daaru Xudoos buy mbind waaye ak jëwriñ Cheikh Mamadou Lamine mu Cheikh Mamadou Moustapha moom sa Sëriñ Moxtar waaye di ñaanal sama yaakaar sama bunt suñ Touba sama yaakaar tey ëllëg sama wasila Sëriñ Abdoulaye Sabo suñ borom guddal fanam yàggal ko fii te wéral ko ba mu dem ba dégg xalifab sëñ Baar ak suñ Touba mhm. yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko def di wax rek nu boole xol yi gën a bëgg gën a jàppale gën a yéenante jàmm te xool fi nu sëriñ bi xooloo waaye teg suñu tànk fi sëriñ bi bëgg nu teg fa suñu tànk te xam ne buñ ko defee rek lim bëgg ci non dina ko defé ba defé ko nu kawé njortam wa alaykum wa rahmatullahi taala waaw kooku do non serigne uh, Maguette sam jaamu serigne uh, Aziz Abou Madiana Mbacké momit ñing ñu ngi koy jaajëfal ndax wax deug yalla liggéey bi xatna waye jox nañu ci jotam aussi and ko ñun bo batay wax deug yalla mo ñu yombal liggéey bi bo batay tey ñi ngi dégganteeg moom mu di ñu tek ci yoon di ñu wax lii ngeen wara a jaar di ngeen jaar bu ñu demee ba liggéey bi jàpp na daf ci am part mo sa ñu koy jaajëfal moom it di di ñaan digganteem ak uh, sëñ Aziz Abou a yàgg ñu ko ñaanee def ba sëriñam eh, xel day fattu mhm. waaye kat yi nii ngeen ànd di liggéey dañuy ay doomi yëmbal bokk ko ci njabootu sëriñ bi sëriñ bi boole leen ci jëmmam événement yu bëy Mbàkke Kajoor buy mbind Touba yëmbal ni ñoo di couvriral sëriñ bi ñuy ay doom di soppe di xarit ci kër gi bëgg sëriñ bi lool may doon élément ci kapti ci yor benn émission boo xam dalal jànkatu xasaay yi ci doone leen di sant di leen gërëm muy Modou Diop bi ak Pape Gueye teewal nañ fi personnel bi yëpp waaye kenn du Ami TV aussi ñoom it eh, ndax su ma déggee Ami donte yaa ngi koy définir ak expression AMI waaye dama ci sentir soxna Aminata Lo macha allah dégg nga dégg loolu tamit hmm. soxna Aminata Lo mooy waajur gis nga gis nga saa su ne baatin gën a feeñ tamit mm. gis nga ñi mënut a ñàkk ngay toog di waxtaan ñoom ndax Ami TV mm. soxna ak parce que màgget dañ lay bàyyi na duñ la téye dégg nga moom taalibe yi moo nekkoon euh, Serigne Maguette Samb di jëwriñ ci biir kër gi di jàngkat boo xamante ni wax dëgg yàlla ku nekk xam nga ko noonu rek lañ koy defee mambamba yaa bëri njëriñ mambamba yaa bëri njëriñ dem yaa bëri njëriñ dem yaa bëri njëriñ mambamba yaa bëri njëriñ dem yaa bëri njëriñ mambamba yaa bëri njëriñ dem